ñu ngi lay nuyu di la ziar di la ñaanal jàmm te di ko saako ci yow. waaw Babacar maa lay bëggee bu baax. di la nuyu xam ñu ngi sant yàlla ju si yonent bi sant suñu ay ñaari waajur. Mhm. ñu ngi nuyu waa kër Soxna sa Saad bu abi di nuyu kilifa diina ak kilifa aada yëpp. Mhm. di nuyu yéen ñu daje fii yëpp. Mhm. comme naan nga xam nga kontaan nañu ci gis ci waxtaan ak yéen. di jégalu ci déplacement bi ak temps bi ñu bàyyi fii liggéey bi xam nga. noonu la maa nuyu ñëpp maa ngi bëgg ñëpp. mais fi nga commencé muy sunu papa sunu grand di Nicolas ñu ngi koy ñaanal suñu boom defal ko jàmm mbiru justice nag du ñu avancé xam nga. mais dañuy ñaan rek en tant que sénégalais xam nga mi ngi nekk euh, koo xamante ni mi ngi jël ñaqam di ko def ci làmb di ñu jàppale xam nga. te làmb comme ni ñu ko waxee rek. pour xam ñaata licencié ñoo fi waaw ba ba pare commencement bi dañ ne dafa dëgër amul ku tëgg. mu volonté wu ñëw di tëgg xam nga. ñuy ñaan rek defuñu dara nag dañoo ñaan rek xam nga ñu ñaan ñu ñëpp ñu bokkul monde làmb yëpp. ñu ñaan ñu bàyyi ko mu continuer liggéeyam xam nga. ñu ñaan daal te ñaan lañu am te ñaan nañu am na solo président de moom mi nga xam ne mooy moo jiite mooy suñu papa ñun ñëpp mooy kilifa gi mm-hmm. ñun mbëri yi say doom ñu ngi lay ñaan li ñu ko laaj nga bàyyi ko wala nga jàpp ñu ñu bàyyi ko incha allah jërëjëf am na solo yàlla na yàlla nangu ñaan parce que waaw comme li ñu wax rek ñun ñëpp benn lañu mm-hmm. mais nag da nga woo tey presse bi parce que micro yaa ngi nii ma téye caméra yaa ngi jàkkaarloo ak yow mm-hmm. lu waral Boy Niang woote tey fii bi lu ko waral mooy nekkul lu extraordinaire woote bi lu ko waral mooy yéen ñu toog fii yëpp ku ci nekk li lien bi nga am ak man nga am ak yeneen mbër yi bëgg nga def émission ak Boy Niang woo nga ma du benn yoon du ñaari yoon comprendre nga bu mm. bëgg def émission ma jàpp ne il faut ma dem ku nekk ma defa yow émission te day metti mm. te su ma demul ñeneen ñeneen keneen mën na koo gisee neneen ma ne gars yi nañ joxe rendez sama école de lutte xam nga tey vendredi bi ñu toog ñu waxtaan mm-hmm. ñi ma bëgg a interroger ñu interroger ñu a waxtaan ak man nañ waxtaan ak man mm-hmm. a jël ñu jël ma benn mm-hmm. man nag fi may ba gars yi ngeen baal ma li extraordinaire mm. ci man wala boog ci sénégalais yi mooy fan yi wala sax weer yi yëpp ñu ngi naan booy Niang Balla gay Boy Niang Balla Gaye ma jëloon la fii kër nga yor sa kaasu fonde génne ko tàllal ko ne moo fi des na ñëw daan ko su ko jël siwul ma yóbbu ko ko te moom ay waxam defe naa dégg nga ko la mu wax ci côté bëre bi du ngeen ci naattango du ngeen ci mappandoo làngandu ngeen ci lu mu wax moom maanaam li mu wax kay dégg nga ko ah. maanaam bokk ngeen ci bëre moom bëre dara tam la hmm. bëre léppam la mën na leen jàngal bëre léegi moom man ak Sa Thiès ba ñuy dañuy daje maag moom xanaa néew foofu loolu jàngalu ko mu def ci boppam lu ma daan moom moo jël avance bi. moo jël avance Sa Thiès. sama combat Sa yaa ngi fi fi. ba Sa Thiès daan nañ ne ci plateau bi. moom moo ne nañ ma jox avance bi boo yi fi nekk di lay làmb di rapi rapi nekkul lu ma évent dem nga ko génne. Hmm. yaa ngi dégg ñu jël avance bi léegi dégg li ci boppam boobu mën a bëre boobu technicien boobu te def ko ci Sa Thiès da ko ëmb indi ko dama ko duma duma yu metti delloo ko ko. mën hmm. na ko dugal ci moom. Hmm. waaw loolu moo solo Hmm. ah si man ak Sa Thiès bëri nañu raxam la boppam mi ngi ci moom dégg naa mu ne moom mën nañoo jàngal bëre tactique gu bëre mën nañu koo jàngal man sama équipe bi fi laa jàngee tactique gu bëre lu daan Sa Thiès lu duma Sa Thiès daan ko fi laa ko jàngee fi nga ko jàngee fi laa ko jàngee ci équipe bi waaw moom est-ce que yaa jàngal lu ko duma moom Balla daan ko waaw loolu bañ yegg ci parce que yeggawuñ ci ah da ngeen ci daa mel ni soreetu ngeen ko waaw mais benn la waaw duñu benn mais man tamit ak ñi mu doon bëreel duñu benn <laughs> moom bëree naa champion bu ne lan mooy différence bi. waaw déglu ma ñëw waxtaan balaa muy neex rek ñu déglante. Ah, moom am na ay champion yu mu bëreel émission ma def barki démb wax naa ne champion la comprendre nga champion yooyu mu bëreel nag ak man duñu benn parce que mbër bu ne ak yàlla sumu def si yow mais da nga ma wax li mu wax ma tontu la da ne moom nee du sama morom ci bëre mun nañ jàngal bëre mun naan jàngal tactique bu bëre ma ne tactique bu bëre boobu muy jàngal da ko woon def ci Sa Thiès parce que moom moo jël avance bi. Hmm. moom moo wax dañ ma jox avance ma yóbbu ko waaw. Hmm. Fadel mais Boy Niang buñ ginnaaw buñ la nuyoo. Mm. Euh, di la jaajëfal ci lii nga def. Mm. ndax noppal nga presse bi yëpp. Mm. mais est-ce que liggéey indi contre Lac de Guiers daan na Balla Gaye. waaw nekkul lu may indi parce que nekkul Lac de Guiers rek laa bëreel. bëri naa ku nekk comprendre nga mais làmb bu ne ak li ciy xew moom moom bëri nañu daan ko bëri na daan parce que làmb bu ne nekkul ne dama Lac de Guiers dafa am na mu demee rek mënu ma daan keneen ak keneen làmb bu ne ak li ciy xew mais moom dafa wax delloo moom ma wax delloo ko. le fait que nag sama combat la de guerre mi ngi sama ginnaaw man maa ngi entraîné combat bi am na ku la de guerre dañu ci tiré ay leçons loolu mooy yoon boo jugee ci dara dañ ciy ay leçons leçons li ñu ngi liggéey yi nga xam ne poids bi nga xam ne moo baax si ñun ñu ngi koy indi ñu ngi entraîné ñu ngi def fulla ñu ngi def fayda ñu ngi def jom Matar adversaire de taille mhm. mhm. yaa ko wax de man waxuma ko yow yaa ne adversaire de taille merci adversaire de taille moo neex ci bëre koo xamante ni dafay bëre dafay dëggal boppam dafay xeex dafay bëre su boobaa lamb ji bu ñu ñëwee bu arbitre rek dañuy def fulaak fayda maag moom comprendre nga mais jaru ñu ci avancé parce que combat bi mais moom dafa am loo xam ne dafa ma ko wax sànni ma ko nga leeral ko ma wax ko tontu ko mhm. loolu moo ci am solo waaw soo ma waxee lu mu wax dina ko tontu waaw mais li li mu wax moom lu lu leer xam nga ku la ne mën naa leen jàngal bëri boobu ku moom nëbbatul ay waxam xëy na yow xëy na yow yaay ni yaay la waaye Balla moom la la bëgg a wax daa mel ni wax na la ko yow il faut nga tontu ko nag ñu mënuñ jàngal ba pare ñun comme li nga wax ay doom mbër ñun ay doom mbër lañ hmm. yaa ñun ay doom mbër lañ suñu papa mbër la hmm. yaa ay suma papa champion la suma papa champion yooyu amul solo parce que ñun ay xare lañ suñu papa Double Less dañu am beaucoup de respect pour moom duñu mës a teggi tànk bu bu ci moom suñu papa la muy joxe ca li ma ko gën a jàppee mooy dañu ma suspendre mu nekk ci moom lees waaw mhm. moo tax loolu duñu mës a manqué respect ci moom ah mhm. mais ay suñu papa champion yoolu amul mhm. boo gisee ñu ne nit a ngi nee di dem loolu barke bàyyi la ah. mais lu muy def ba jiita mbooloo bi loolu moo koy sàkkul boppam comprendre nga ñun ay xale lañu moom bëri naa ay champion ñu daan ko te ñooñu seen papa duñu ay wala bu ñu nekkee ci ay mbër tamit euh, soriwuñ ci làmb mm-hmm. moom ñu ko daan ñu ko xam ne bëri naa ñoom ñu duma ko daan ko ñoo seen pap du ay champion mm-hmm. kon affaire yi nekkul Sa Thiès papam champion la te maa ñu affaire yi du foofu ñun duñu kenn respect parce que noonu la ñu yaree mm-hmm. mais képp koo xamante ni jël nga sa kàddu nga nekk mag yaa ngi nga war a jiite mu naaj nga sànni ñu kaba rek ñun dañuy jël xeer bu gën a mag tëmbal la ko noonu la demee man xeer bi xeer bi ba tey daa mel ni dalagul wala sànni yeggagul fi mu war a yegg Matar waaw lan moo indi coow coow li waaw sa digganteeg Balla coow li non amul coow amul coow champion la mbër la mu nekk coin man mu nekk sama coin ba ma waxee sama bët gi dem sama émission damaa wax li ma wax moom dafa génn sànni ma ay kabo moom tamit foofu ma poobar ko ba mu saf parce que moom doon jël ay mag yoo xamante mi doon bëree ay grand frère ba defee suy ay mag Tyson Babou ñeneen ak ñeneen comprendre nga mais bu ñu xoolee ñu ñëpp ñu ngi ci làmb amul lu mu leen dul am lu mu leen dul wax léegi nag xam naa dafa am xale boo xamante ne du ko may dara fu mu ko timbaxee rek da koy dama wax noonu la demee fu ma defee benn dama ko def fukk ba ci waax ba ci làmb ba ci face à face ba ci biir géew albit tëj nay soufflé loolu moo ci am mais amul leneen non du ay ñemee yàlla xam na ni fixé wu ma ci Balla Gaye mais ak mbër bu mu mënta doon su may bëree yow damay jàpp ambition ni damay bëree yow te dama lay daan yàlla si borom mooy may ndam mais nekkul Balla Gaye war a keneen keneen Balla Gaye boo gisee nga tudd ko parce que yaa wax wax ma lim ma wax ma tontu ko loolu la rek. Mhm. Balla booy combat bi taxawagul. Mhm. ndax euh, te tool yi lool lool lool lool mais est-ce que promoteurs yi avancé nañ ci dox ko pour parce que combat bi. Euh, waa rëcc noonu la demee combat bi bu ñu waree bu ñu waree waaw bu ñu waree bëre rek dañuy bëre parce que laam la quoi. ñu ñu fixé wu ci Balla Gaye ñu bëre moom ak ñu bëre ak keneen amul benn problème bu ñu promoteur seetee dañuy bëre mais sama papa génn def la sotti am na lu wax am na loo xam ne du ma ci avancé le mm. fait que promoteur mi ngi ci wala loolu du ma avancé mm-hmm. parce que kuy woo sama papa ngay woo wala sama ménage père Bourkhane ñooñu boo laajee nan la a wax ba xam promoteur mais ñu war ah. ñu def man man dafa am la bëgg a laaj mm. maanaam parce que wax ji il faut ñu wax ko sa digganteeg Balla gay 2 coow li coowal làmb rek la du leneen. est-ce ay dégg moom dafa jàpp ne dalaa dàq bëre. noo lool amul. ah baaw ko loolu amul. Balla dàqu a bëri. laay dàqu maa dàqu maa bëri dàqu maa xeex gënu maa ñeme gënu bëgg li may def. booy nag Balla dàqu laa lan la ma def. waaw jiitu na ma ci làmb. ah. naa ñëw bëriwul maa gën a nekk xale. Hmm. nee na nag man magum xaw ma lan lu mu wax Pape. nee na mayewu ma lu bari waaw nee na génération nañu ok amul benn problème ay dégg hmm. nit moom yaa ko mag wala magu ko du ay wax moo koy wane hmm. da ngeen di bëri ngeen talante ci biir bëri xam kat xale pourtant moom da ci ay waxam ne ne mbër yi fi ne ko ci jël dal mën na leen jàngal bëri waaw ba mu des man mënu ma jàngal bëri yàlla xam na ni Balla mënu ma jàngal bëri hmm. billaay mënu ma jàngal suñ leen tëjoon ci biir barrière géew bi arbitre suuf li génn seen digg su boobaa xam kan booy ñaa moom ngeen war a xeex war a bëri. su boobaa moom Balla Gaye Omar Sakho ci lay xam kan mooy Boy Niang. Omar Sakho la tudd. waaw waaw noonu la tudd kay. noo xamee loolu. mais Balla xam naa si moom lu bari. moom xamoo mais xam naa ko. da nga koy gëstu ni kon. non du gëstu sax mais man xam naa ko parce man dama nekk xale dëkk fii Balla xam am na ay temps fii la fréquenté fan suñu koñ fii fréquent di ànd ak ñoom jeune ndaw xam na li moom mi may gis ah. ñu ñu nekk ay booy yu ndaw di nekk entraînement bu ñu jugee dem ci président Abdoulaye Diop ñu ngi koy nuyu may ñu téeméen jënd cere hmm. boobu ñu ko fekk bu ñëwee gaar oto ñu ah. wax lu ko neex mais moo ñu mag làmb waaw <laughs> mais booy hmm. ñëpp biñ dajeeg moom seen xeex feeñul waaw ak ñoom tey ñëpp xàmmee a xeex ak moom du dem ba ci biir nga jël combat non nekkul ku mën a xeex ci làmb mais daf ne ñi mën xeex ñëpp waaw